cinq million moom xaalisam mi ngi koy jël di ci dimbali doomu aadama yi bu nit sonnee mu jàppale ko bu nit sonnee mu dimbali ko te ku ko bind na ko da soxla nangam mu defal la ko King Saliou yàlla yàlla guddal sa fan yaa baax ci société bi ñi nga jàppale bëri na jeunes yi nga jàppale bëri na xale yi nga jàppale bëri na mag ñi nga jàppale bëri na sa xaalis mosoo ko lekk mu yem ci yow ak sa famille déedéet sa xaalis képp koo xamante ni doomu jullit rek am problème feebar ordonnance école inscription lu mën a doon yaa ci gaaw Saliou ñi ma la masa booleel yëpp jàppale nga leen ci ay millions ku mel nii ko doon ko ñaanal gudd fan ak wér na yàlla guddal sa fan King Saliou ci kaw ci kanam ci lu baax jërëjëf Saliou